yàgg na waxuma dëkk moom nii moom waaye ànd bu ànd bu yàgg bi ngeen te olof day wax ni bu yàgg rek dëgg la ngeen ànd ànd boo xam ne du dëgg kon tàqali ren yàgg na mais da nga ànd ak moom sérieux sincérité ci compétence loolu nag ku xam am fa am fa nga am na rek la war a demee léegi ñu jublu ci sëñ waxoon naa ni Omar Diagne Gueye lañu war a may fat ñaan gi la ko waaye ñaanal Thank you. Yusuf mais ñu ngi fàq la ko ñu daal ma doon fayal sama maam ma doon fekk ma jàngal leen ak ma. voilà xool nañu ne. yàlla na yàlla jàppale ñu ngi leen di seetlu lool. kon sant Serigne Fall la bàyyam tudd Serigne Fall lu def réew mi cam ne maram ko bàyyam leen ku yokk jumaa ji tàllal bi mbiru almeri bu def lu kaas Serigne Fall sa maam moo yóbbu nit ñi màkk liggéey jumaa ji yokk jumaa ji Serigne Fall El Hadj Omar Diallo moo toog nii di imam ratib diggante 4 5 ak Sacré Cœur imaam nee na kenn ku nekk voilà ok. position bi ma taxawee la. Binu. Voilà Binu. Clé d'or, hein?